bàjjen moo di ma di bàyyi wala rak lu xew lu ne ma di bàjjen taxaw bu góor jugee nii bu góor bàjjen taxaw wayal ko mbaax waaw nijaay di yaay kon nga di bàyyi damaa kontaan ci yéen. yéen kon dafa leen ne ndekete. liggéey boo ko amee da ngay def fulla ak fayda. bonus jar na 14 milliards. waaw ah, bonus da day am moom. teg fulla ak fayda. bonus jar na 14 milliards. te liggéey bi rek. kii la laal la bu la bi foofu. efficace. tey moom macha allah moom. volonté rek volonté rek ah liggéey nii la de dëgg moom boo ko amee. suñu musuwaar yi jeex na faaw nga jëndoon lu musuwaar. amul nii laa di ngeen ko duñu ko bëggee moom. prenez place. waaw na ngeen def yéen. ça a ah bu bale ah, ah, bu bale. maaleykum salaam. waaw ñëw mi ngi nii de ñëw ngeen. ak si gargot bi. yéen a ngi am jàmm naka koor gi. yéen a ngi ca kawam ba. defar leen yow. ana sëriñ yi ah ba takk nañ leen. maaleykum salaam. voilà. baal wax ju bari ji. si ngay xuloo rek. Ah, li ma leen waxoon nee naa leen chaque fois salaamaaleykum. <laughs> salaamaaleykum bàjjen. waaw yaa si jàmm. ay nii namm naa la. waaw bàjjen sa ruus baax na de. waaw tey nii laa def. tey damaa ñëw nii xam nga rek fas yéenee def li nga xam ne mooy direct. Mm-hmm. man instant bi sama ami yëpp nee nañ dañuy ñëw fii. ci gargote bi chaque guddi fii la ñuy ndogoo xanaa li neex na. loolu neex na bay bëgg a wax dëgg yàlla. Ah, dëgg neexul national banque internationale. dégg loolu ñëpp ñoo bëgg a ñëw ñëw ñëw añ ndog si fii. Uh-huh. ah macha allah macha allah xale yi waay. ñoo ngi nii nag macha allah def jàkkaarloo daal di toog waxtaan ak bàjjen. mais yéen kañ ngeen di ñëw. ah waa baax na. indépendance baax na xaaral ma yéeg. merci. baa ma toog nii rek. dëgg neexul baa ma toogee nii. merci beaucoup merci merci. ok. sama gars yi mi ngi noonu. xoolal fii toog daal di jàkkaarloo yéen fas yéene leen a defal di nga xam ne mooy direct. garba bi la avec la xombaloise dëgg neexul. laa def eh, ah! waa kii du kolle yow. muy yow lu xewati fii ba jàmm. <laughs> Eh, gaa amati na. indi bii kaa. dafa nag kii dafa a leen te bu ma daanee chaque jour ak kaa bu bees. yow wala la. ah. oh kenn yow laa. oui sama ndey. da ngay noppi man maa la dàq jooy da ngay noppi. maa jël wax la nga wax lan la. lan la. maa jël TikTok. ah yéen. waa jël TikTok. waaw. kii du wàññi. waaye dafa taxaw eh eh eh. xam nga ni yow. eh eh eh. xam nga ma daanale nii tamit. lan la lan la. waxal lan la. TikTok. waaw ana alal du ma faalu. waa jël TikTok. TikTok waaw kan mooy TikTok. TikTok waaw. bàjjan tiktok bi. Ah. mais Gilles jëlal ma lii. bàjjan du man damay sëy. damay sëy damay sëy. sama jëkkër bëgg na ma wala. bëgg na lool. mais yow loolu leer na la. bu baax. man ñaata ak yéen rek nii man maa ngi nii di ñàkk aw ma jëkkër. jëndee jaay ma xamante ne calculé tu ma ko sama xarit yow. ay eh, du maa ngi yaat at fi jolli. ay eh, dix ans. ah waaw. Ah. léegi maa ngi sama jëkkër man ci man kër la ma dugal. ah maa ngi xaw ma ko man waxal ni la naqari. waaw maa ngi sama ñaawal bi. troisième yow rek laa fa am nag waaw. Badiane TikTok. waaye yow TikTok fan la dëkk yow nag ma wax lan la man xamala la bu ma énervé nag. Badiane yaa ngi xam TikTok dëkk fenn yow yaa gën a xam ne ba damay nekk sama biir nekk di nga appel vidéo. appel vidéo sama jëkkër. léegi lan la lan la dafa dafa dafa nekk ci réew. dafa dem man maa ñëw après man léegi man après ma tëdd après ma jox ma tëdd am na vidéo def vidéo ne ko coucou daan na ko bisou daan na ko am na doon lay déglu coucou bisou ma loolu doom nga def yow loolu rek la waa léegi noppi noppi ñaa ko lii ma wàccee après waaj vidéo bi may ko ci tiktok bi oh. baje tiktok tas na sama sëy waaw ne na kuy baaj di yow TikTok moo la takk ba des sëy lan la yow. sama vidéo. waaw la xambasoise moom moo ko publié. la ji. la xambasoise lekk nii. nekk nii. kii dama koy lekk. dama koy lekk dama koy lekk dama koy lekk dama koy lekk waaw. man dama ko attanul. waaye laisse moi tranquille waay taxawal waay yow. waaye laisse moi tranquille waay. ma. de de na ma jege. toogal toogal. yow yaa ko mbasal yaa kuñ fi teg daw ak sa gàttaay. yaa def ñu dugal ko. yaa ko mbasal yaa ko mbasal ma ne ko. fii lu waay def fi def ñu dugal ko. yaa ko lu tax nga def fi lu ne weeg. Oh. fii loo fi def lu ne ñu dugal ko. Oh, grand may ma kii. may ma la kenn. grand may ma kii xaar ci biti fii kenn maa ko def. kàddu naa ko tëjee ah. sama kii sonal na ma trop li ma la. sànq si sa jafe jooju la lan lan tëli tëli. naa sa téléphone moom lu fi waaye def lu ne ñu ne ko fang ne ko dang si TikTok ñun loolu lañ fi am. kaa rek. kaa rek li ngir yàlla waaye ak ma sa jëkkër di doyee laa xamut qu'est-ce que c'est li ma dama ko man fay ñàkk fay yéen yéen war yéen ngeen dimbali nit ki mel ni sinab rek man ma lu xew fi keneen kii la kii la na daal di ay ay ak ay yuuxoom yuuxu daa def xama tiktok la xama fuy tiktok dëkk ñu ngi nii expliqué waaw toogal da ngay toog. toppil man dama wax man am jëkkër. waaw dégg nga jëkkër nekk bitim réew. dégg nga Modou. Modou dégg nga ñu bëggante mi ngi fii Dakar. waaw dégg nga ñu bëggante waaye moom dafa voyage fan yii. waaw dégg nga ban réew la mi ngi Espagne. Espagne fan yow dégg nga waaw léegi ñu nekk foofu ma ak moom ñu bëggante xam nga la wax léegi ci kaw bëggante boobu hmm? xam nga la wax moom mu ne ma léegi talas appel vidéo en gros la wax waaw moom laay nii léegi bi ma ko ñëwee ma jël appel vidéo bi daal ne wayu teraanga la kuy baax te jógal ne sumuy sagal maa am na gis say affaire daal ko ñaw bu baax sax ñaw bu baax ngay jël yow man xalaat amoo dara loo wax. ak jëkkër nag dëkk la mais am na foo xam ne bala war a mën a yem. wuy gaa mais yàlla dara bu ngeen ñëwoon ba tas tey ngeen am problème mën na koo génne publié. waaw mu amal ko fi ba tay. waaw waaw tu la fekk mooy sa paxi bakkan yu xat yi. billaay. du ngeen bàyyi sant yooyu. yow gis nga père. Eh, ah. ñun dañoo ne ci jamono joo xamante ni mm-hmm. jamono ji dafa yàqu bàyyi leen seen yaram yi ngeen di photo wala seen yaram yi ngeen ngeen ngeen di vidéo di ko def ci tiktok bi bàyyi leen loolu lekk ngeen dugal naan ngeen dugal yaram ngeen dugal lépp ngeen dugal bàyyi leen loolu civiliser leen damaa bëgg ngeen civiliser xam nga nit per gis nga nit civilisation da naan ci sañsa la xel mooy set setale seen xel yi mm. amul jëkkër amul far amul leen ku ne fotal sa fotal sa yaram ma gis bañal xam nga yoon newu ci gis ba weeru koor da ngay gis ñoo xam ne bii dafa dañuy dressé table ta taw la teg tàndar ma café suukar meew waaw nangam nangam ko la teg mais yow yow moom dinaa wax ak yow bàyyi leen vidéo yi jàmbur yi ngeen di jël di dugal nit day am sutura nit day am sutura ñàkk ngeen fayda trop li mooy lan vidéo jàmbur nga def ko cas jël dugal ci internet bi yàq deram yàq famille am yàq njabootam yàq doom loolu la na dem rek na dem rek na dem rek. man sama yoon.